mbokku senegal mbacke borom baax dikk na ngir jàppalante ak yéen ci jafe-jafe yi ngeen amee jëm ci wàllu jafe-jafe àdduna ak surtout wàllu ñaan moom sëriñ bi mbacke borom baax dina yëngatu ci wàllu seet seetu ramlu moma ci doy ngir jafe-jafe yi ngeen am ak li nekk seen kanam ngir ngeen mën ko fànk ñu ne ndax foofu la yam ñu ne déedéet moom mbacke borom baax mii dina yëngatu ci wàllu listixaar à distance nga xam ne du jarati ngay déplacé wu di ñëw jokkool ak moom rek mu defaral la ci anam gumu mu gën a ربي أعيسها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمثال الشياطين وأعوذ بك رب أن يعذرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا mbokk yi ne bàyyi xel fan mën a nekk ci àdduna bi moo xam ñu nekk ci réew bi wala ñu nekk bitim réew ñoo ngi leen di waxati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi tey nag dañoo fas yéene ñëw ak yéen ci benn secret boo xam ne bu am solo la di secret boo xam ne fi mu ne nii jamono laaj na ko bu baax ndax jamono xaw na métti képp koo xamante ni lii di wàllu am-am rawatina xaalis daf la xaw a jafe na nga góorgóorlu ba def lii nga defe ko nii ñu koy waxee allah rabbi dina la yomb lool incha allah. xanaa bala ñuy sore rek dañuy wax yow mi nga xam ne yaay mujjee ñëw te topp suñu vidéo bu fekkee ne abonné goo ci seen dégg abonné sam video bi partage ko mu gëna yaatu video yi dugal fi yépp ay video ñariñ kessa la ta ñariñ ñu gëna yaatu rek ci la gën a mbokk yi bëgg def lu ci xaar mën nañu contacter ci benn ci ñaari numéro yi inshallah rabbi dina lay defal ci xaar gu leer nañ wa mbokk yi ay bi ñu wax la khalqu samawati wala di akbaru min khalqin nas walakin aksara nas la ya'lamun moom nga bindi 175 175 moy tolok fidda moy khalis ñetti mim nak nek na ci ay bi mim yep da nga koy ubbi boko ubbe nga dugulat ci bir yaati xaaris raqadan min kulli makan mim mim yep 175 fois ngi bind ay bi ñetti mim mi ngi ci bir mim gu ci nek da nga ci dugal yaati min kulli makan mom ngay dugal ci bir mim yep nak 175 mim mat boo noppee mbokk yi di da nga koy def saafara fexe ba wut ndoxu taw fexe ba ndoxu teen wut ndoxu géej ñetti ndox yi ngay wut fexe ba wut parfum bi nga xam ne moom la wax parfum kaafoor nga def ko ci fexe ba di ko faral di jëfandikoo bare bare bari boo koy jëfandikoo nag diiraa li ngay jëfandikoo ndax jëfandikoo gi gën kaa néew na nga fexe ba mat dix-huit jours mooy xadatu xayyu dix-huit boo ko mënee nag bis bu set boo mënee génne tàndarma nga génne ko saraxe ko boo ko mënut chaque trois jours na nga jënd tàndarma nga saraxe ko mbokk yi lii lu mu jamono jafe-jafe jafe boo ko defee incha allahu rabbi jamono day jàppandi ci yow lool lii di xewal tamit dina la yomb yomb goo xam ne yow sa jëmmi bopp dina la yéem kon secret moo nekkoon noonu di wax ngeen partage ko mu gën a yaatu te ngeen abonné wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf mbokku senegal mbacke borom bax dik na ngir jàppalanteeg yeen ci jafe-jafe yi ngeen amé jëm ci walu jafe-jafe aduna ak surtout walu ñaan mom serigne bi mbacke borom bax dina yëngatu ci walu sét sétu ramlu moma ci doy ngir jafé jafé yi ngeen am ak li nekk seen kanam ngir ngeen mën ko fank ñu né ndax fofu la yam ñu ne dédét mom mbacke borom bax mi dina yëngatu ci walu listikhar à distance nga xamné du jarati ngay déplacer wu di ñëw loko ak mom rek mu défaral lako ci anam gumu gëna yewé né ci lu jëm ci walu ndomba mom serigne bi di ci yëngatu moom mbàkke borom baax ndomb yu am solo la leen di jox yu yéeme loola nga xam ne ku ko takk ku ne doo faatu mukk si ndox ah mbokk yi loolu lu am solo la jaaro bayra yi nag ak ubbiiku moo ma ci doy moom mbàkke borom baax dina la ci dimbali ndax loolee rek la mëne lu jëm ci wàllu jaaro bayre nga xam ne ci jonn yàlla tey jilee dañu koo yittewoo ak ubbeeku ku ne bëgg ngaa ubbeeku ci sa bërëbu liggéeyukaay ak àdduna ba wër sa ganasi la sëy li muy tas bëri na te kër yi yëngu loola ci lu jëm doy moom Mbàkke borom bax dina la ci dimbali ci anam gu mu solo walu tukki nak moma ci doy yeen ñu bëgg walu këyit te mu jafé yeen ñu nekk biti réew te am këyit jafé leen itam mbacké borom bax mi moma ci doy kawlin leen gaaw adresse am rek la mi ngi ci Touba mbacké ko ci 77 684 28 28 wala ci 77 668 28